Mmh. asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum aduna wërngal kep uh, nuyu na len di len dalal suñu benen xéti programme City Affairs tey nak dañ gëna def benn doxantu bu ndaw ni rek uh, ñëw biir uh, FBN GLAM ma and fee mo benn xarit bu ñaawut bi ñu gën ko xamé ci Mariama Diallo Mariama nuyu na la. asalaamaaleykum <laughs> Gambia asalaamaaleykum adina bi yëpp nuyu na len ñu fekk fi Mariama ah, mu defal ma make bu rafet bi macha allah defal ma lii man nee naa benn jigéen ñaawul jigéen bu ñu defar rek mu rafet ah, tey nag moom ñu ngi si weeri mu defaral ma lu simple lu rafet li nga xamante ne ah, mun nga koo demee liggéey mun nga koo demee ngénte surtout takka ak yooyu noonu yéen a ma gën a xam mu doon make bu yànja bu rafet lool Mariama kañ nga commencé make-up liggéeyi make it's seven months léegi bu ma ko dooree ak léegi am na seven months. danga ko jàng nii rek ah, mun lu rafet li ah, di ko def si kanami nit ñi mariama yow sa makeup skill si ah, bëgg naa nga nga wax ma tuuti rek si si li nga jot def nii ok eh, soft glam laa la defal like mun nga ko ooya afternoon makeup because naaj bi dafa tàng as it now and makeup bu nekk dafa am waxtoom no eyeshadow just brows la foundation ma use contour with highlights that's it mu doon lu am solo ñu ko gisandoor makeup baa ngi nii rafet na lool yànja na euh, FBN Glam euh, FBN Glam moom euh, suñ koo wax mu doon ab beauty salon dama bëggoon a xam ndax yéen makeup rek ngeen dee def ndax da ngeen dee liita ak yeneen yi si. non non non non spécialisé suñ si makeup kese dinañ dee liita dinañ dee makeup dinañ dee ñëw wigs dinañ dee def pedicure medicure Oh, tamit comme yaatu gis nañ ne euh, feebar bi nga xamante ne moo lembe réew mi euh, ñu gëne ko xamee si coronavirus mi nga xamante ne fu nekk nii dinaa ne tardel na lu bari si biir réew mi du ne Gambie rek because dafa lembe aduna léegi yéen feebar bi euh, naka la mel ak seen liggéey bi ban ban ban jàng li jafe-jafe ngeen si nekk di jànkuwanteel disturb nañu torop cause right now liggéey nekkul di dox ni mu war a doxee yeah disturb nañu bu baax a baax fu na ne nii ñi nekk di gis rek moo nekk um, like frequent customers yi day ñëw waaw. Uh, ok ñoo ko déggandool coronavirus moom doon na feebar boo xamante ne ah, du ma ne yaaxana waaye euh, lim liggéey bari na euh, gis nañ ne euh, salon bi bu ñu fi ñëwee regular customer comme suñ last ten days si julli dañ dee gis salon yi daf tey fees soo ñëwee si salon di nga fa gis nit bu nekka waaye tey ñu fi ñu ñu ngi gis les nit muy wane ne comme coronavirus bi moo affect business bi ba nit ñi nekkuñ da ñëw soo si biir loolu Mariama ma ñëw fii nii fekka la tamit yaa ngi doon liita dama la naan liita bi tamit seven months bi nga ko commencé ndax lu yàgga si yow la liita bi moom lu yàgga la lu ma buggoon di def la yàgga naa di ko def nekk si depuis bi maa gën a tuuti nii dama dee bëgg a di liitantu mu doon loo xam ne tey xëj na mu maa njëriñ ñoko digandor tay FBN lañ ñew eh, SBM Glam eh, nee la rafetal jigen eh, tari jigen mo leen taxajuk di leta di defar rafetei num gëna rafeté ma ma bëgg dox rek ci bir wax ma bëgg am waxtaan ak keneen ci bir salon bi fi way de ñoo dem Mariama ma bëggon la laaj tamit na da ngeen dé fix ay hef ak ay nails ak yoy nonu yena ko dé def na dafa am nit ko leen ko dé ñoo ya comme ni ma la makeup ni xam nga fixal na la hef without without makeup so bëggé hef dinañ la ko dé fixal nails tamit the same thing yaa ngi gis ne fale ñu ngi fa def nails yi different kind of nails mun na moo nekk yi nekk si paquet bi mun na moo nekk yeneen yoo xam ne xëj na yow yaay isuñu fixal la may nuñ bot na doon loo xam ne dañ koo fix rek ah, ok ku bëgg a ñëw FBN ah, FBM Glam ah, yan na mbala moo call ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi bëgg a ñëw wala bëgg a meko bu ndax da ngeen dee dem tamit di def lifin home service ak yooyu noonu tamit yeah sure soo ñu ooyee dinañ la dem fekki ba sa kills defaral la li nga bëgg Three one nine one seven one seven three double seven double four double five. Yeah. 377 ah, 4455. waaw. wel mbokk yi ñoo ko déggandoor Mariama laa amoon ci kër gi ah, waxtaan ak moom C'était lañ wax Sahel Network TV bu Euh, comme ni ma leen ko waxee woon rek euh, ma ñëw waxtaanaa suma sista bu ñaawut bu ma fi fekka nii asalaamaaleykum nuyu naa la. maaleykum salaam fay naa la. Euh, mun nga ñëw baaxee tur bi. Mm, coor Thior. Seynabou ñu ngi la fi fekk ngay def liggéey bu rafet di def liita bu rafet macha allah sa loxo rafet na te sa loxo set na bu yow liggéey bii nii yàgg nga si wala. waaw yàgg naa si nag depuis ma bay jàng bi léegi man maa ngi si kaw liggéey bii nii. since bi nga commencé liggéey bi ba tey euh, yan façon ngi jafe-jafe nga fi nekk di jànkuwanteel ah non jànkontewu ma si benn jafe-jafe parce que su ma bugg a bugg la waaw ma nekk si depuis boobu léegi maa ngi see gis suma ma tamit léegi ñu gis ne seena bu euh, fu mu nekk nii euh, salon yi dañ dee busy surtout waxtu julli su jotee ñu gis ne feebar boo xam ne moo lëmbe réew mi ñu ko coronavirus coronavirus bi yéen naka la affecté seen business bi ah doy na waar de parce que ñun moom julli time bi daf daan fekk ñu ngi xat biis yi parce que ñun moom yaaga julli yaaga ni ñu fekk mais julli bii daal mooy loolu gisuñ ci suñu bopp waaye nag ndogalu yàlla la dañ koy nangu waaw. Euh, Sina bu jërëjëf kontaan naa euh, si waxtaan bi fii euh, FBM Glam la ba tey dox daje. tey nag fii lañ ñëwoon si FBN Glam euh, ñu fekk fi Sainabou euh, ak Mariama mi nga xamante ne moo ma defar makeup bu yanja bu rafet bi suma kanam bi euh, ñu waxtaan ak ñoom coronavirus bi doon loo xamante ne affect na gaay seen business bi tey nag fii lañ ñëwoon waxtaan ak ñoom jërë ngeen jëf waaye di balaa laata ñuy dem ma di leen fàttali ngeen subscribe ngeen like bu leen fàtte thumbs up always Sahel Network TV jërë ngeen jëf.